Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di gërëm leen sant. di rafetlu ak di rafetlu seen teewaay en compagnie des programme de Salam Vision euh, l'Afrique en marche tey ñu ngi koy jëmale sur l'élection présidentielle au Bénin Bénin euh, fan la situé wu mi ngi nekk en Afrique de l'Ouest ñoom kàllaama nasaraan la ñuy làkk bu njëkk ba mu tuddoon république du Dahomey moom la ñu tas tuddee ko euh, le Bénin Bénin français lañuy ñuy comme Sénégal ñoom ñoo ŋànk bokk lu ñu naan la CEDEAO CEDEAO mooy bànqaas boo xam ni Afrique sowu jant Afrique de l'Ouest ñu ñëpp ñoo ko bokk euh, ñoom la ñuy waajal élection présidentielle dimanche la ñuy sànni seen i xob euh, seet kan mooy falu diggante président fenêtre di parti Talon bi mooy premier mandat euh, ak yeneen ñetti opposant ñi nga xam nag ñoom ñuy xëccoo nguur gi pour ñu fal leen le 11 bi di ñëw mooy dimanche fukki fan ak benn si weeru avril beneen royukaay la woon si démocratie atum 1990 moom moo njëkk taxaw woote une conférence nationale pour la paix et la démocratie en Afrique nekkoon lu rëy nekkoon lu ñu rafetloon partout à travers le monde beneen boobu démocratie bu wóor kam moo fa doon dox ñi yaatal géew gi yaatal kuje politique bi euh, ñi fa nekkoon dictateurs yi dem xajal ñeneen ñu bees Mathieu Kérékou nekkoon na fa euh, Nicéphore Soglo nekkoon na fa ak ku ñuy wax yaaya bo yaayi boni ki ko remplacé mooy Patrick Talon ñooñu de doomu beneen yooyu ay démocrate yu mag la ñu woon euh, amoon na une bonne gouvernance jamono 1990 ba jamono ji mun nañu wax nag Patrick Talon moom moo jékki-jékki commencé di changer di fitnal les Béninois te loolu mosu am beneen ñëpp a ngi koy ñawlu muy la classe politique béninoise les cadres béninois et surtout euh, askan adduna bi yëpp beneen mu jëm si élection présidentielle dimanche bi di ñëw di le peuple béninois di di woo les africains euh, ñu topp le Bénin nekkoon référence en démocratie sur le continent africain mais bu ñu defoon ndànk rek Bénin fan yi gis ngeen ni des ONG des droits humains ñu leen doon ŋaññi ne seen démocratie bi booy moytuwul mi ngi gën di dellu ginnaaw ngir ki fa nekk di wala président talon muy jouer le jeu dans la paix dans l'unité et dans la stabilité Afrique bi ñu gis dañu war a booloo bokk ndey bokk bàyyi te ñu bàyyi aussi dictature yi ñuy imposé sur le continent africain dafa war a dakk gi beneen bu jógee foofu nag euh, Tchadiens yi ñooy organiser élection présidentielle lañ signé waat beneen émission l'Afrique en marche l'Afrique en marche nag saagawuñu état saagawuñu gouvernement dañuy informer rek juste c'est vrai pour delloowaat africain yi qu'Afrique bi Afrique bi ñu ñoo ko bokk Afrique bu suuxee ñëppay suux ndaw yaa ngi fi ñàkkum xëy baa ngi fi euh, président yi fi yàgg daf fi ay 40 ans 42 ans de pouvoir man loolu dafa doy ndaw yaa ngi fi an seen lijaase partout sur le continent africain dañuy war a jàppale te tete leen ñu mën a jëm seeni réew ma ni longévité boobu yàggaayu pouvoir boobu en Afrique dafa war a jeex tey war a jeex ëllëg euh, mesdames et messieurs l'Afrique en marche s'intéresse euh, sur l'élection présidentielle au Bénin euh, qui démarre ce dimanche entre le président sortant Patrick Talon et trois opposants farouches de son régime. Euh, qu'est-ce que le Bénin? Avant, ça s'appelait les Dahomey. Un grand pays de démocratie. Était le seul pays en Afrique en 1990 qui avait dit oui à la bonne gouvernance et à la démocratie en 1990. Euh, ce jour, les anciens présidents euh, dictateurs étaient bien d'accord qu'il faut la démocratie, l'unité et la convivialité partout sur le continent Le Bénin, c'est une référence. C'est un modèle en démocratie. Il y a une bonne gouvernance sur le continent africain. Euh, les le Bénin est un grand pays démocratique. Il y a des cadres. Le Bénin, euh, je le disais, il y avait les anciens présidents. Mathieu Kérékou, qui a dirigé le pays avec pas de fête pendant des années. Euh, finalement, il est parti. Il y a eu Nicéphore Sogolo, Yahi Boli, un technocrate, un banquier qui est parti, qui a été remplacé par Patrick Talon. Et c'est Patrick Talon d'aujourd'hui euh, qui a euh, tripatouillé les institutions béninoises. Tel n'était pas, euh, nous disons, euh, le pari des Béninois. Le pari des Béninois était de réconcilier et d'insérer un dialogue constructif, euh, objectif et, et, convivial dans ce pays. Euh, beaucoup de Béninois ne sont pas satisfaits de l'actuel président. Mais hélas, grâce à des hommes d'expérience, à des hommes aguerris en politique, le Bénin s'est beaucoup battu pour une bonne démocratie paisible et stable. Ils vont aux urnes ce dimanche. Nous lançons l'appel à tous les Africains de garder la sérénité et la stabilité. C'est fini la dictature sur le continent africain. Les Africains ont besoin véritablement euh, d'une ère nouvelle, d'une bouffée d'oxygène. pour nous permettre euh, d'aller vers l'avant, d'aller vers une bonne gouvernance, d'aller dans la stabilité. Mais ce que nous avions constaté sur ce continent, trop c'est trop. Euh, L'Afrique en marche est une émission destinée à sensibiliser et à conscientiser les Africains un peu partout à travers la diaspora qui nous suivent que cette euh, émission L'Afrique en marche est votre émission. une émission qui est là au service du développement africain, une émission qui est là également pour dire non à la dictature. Il y a des chefs d'État qui s'accaparent euh, du pouvoir pendant des décennies. L'Afrique regorge beaucoup de cadres, beaucoup de talents. Il est temps, nous disons, de tirer la semaine dans la Il est temps également d'instaurer euh, la paix et ce qu'on appelle une Afrique unie, une Afrique prospère et démocratique. L'Afrique en marche lance un appel à tous les pays africains, à tous les États, de revoir notre constitution, de revoir nos positions, afin que cette jeunesse africaine puisse être debout à la dictature qui règne dans certains pays. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de présidents africains qui sont au pouvoir depuis le 40 ans, 42 ans. Trop c'est trop et ça suffit pour ce continent. c'est nous. Euh, il est temps de relever les défis. C'est nous les Africains qui doivent prendre en main nos destins. Euh, il est temps aussi que les Occidentaux euh, puissent rester chez eux, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des Africains. C'était notre réflexion d'aujourd'hui sur l'Afrique en marche. Je vous retrouve mercredi prochain. Mesdames et messieurs, à très bientôt.